bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli nu ay maqaama yàllaaw bismil yàlla dolli bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli nu ay maqaama yalaw uqal bukaa wala saddaati maay bëgg a way tey jii ma way fii mbokk yi jërë ngeen jëf tey jii dañoo déplacé wu fii ci Parcelles Assainies unité 12 a di fekk si Assane Fall bëgg Fallu taalibe Serigne Fallu Mbacke boobu Xaadim Rasul boo ñëwee fi nga xamante moo di Parcelles Assainies di jaaykatu tissu lépp lu jëm ci xeetu tissu designer brodé di nga xamante ni moom moo di val xeetu tissu boo xalaat mi ngi fi nga xamante ni moom moo di fii ci Assane Fall bëgg Fallu ki nga xamante moo di Assane Fall bëgg Fallu waajuram bi Cheikh Mouhamed Fall da koo yar ci liggéey si ñàq jaruñi am ngërëmal waajuram moo tax saa su ne mu taxaw temm ngir bëggal askan wi lépp lu jëm ci wàllu dossier ah ku fi ñëw di nga kontaan Assane Fall bëgg fàllu taaliba Serigne Fall boobu taxaw temm ngir saafara seen bëgg-bëgg ci wàllu dossier dugg si biir daal di leen wan Seex Fallu mbar mani mes mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàlla oo tey ji ma jooy Seexuna Seex Fallu mbar mani mes mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàlla oo murit yi xaadir yi ak tiijaan yi ko jooy ak suusi ak asamaan seeg ndoxum yàllaaw ak jant weer wi ak biddiw yi ko jooy ak doj yi ak njaayi àll yàllaaw malaayika ak ginne ak yoneen yi ko jooy ak saba ya xutbu yaag wali yàllaaw mbokk yi jërë ngeen jëf di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax tey dañoo déplacé fii si parce Parcelles Assainies unité 12 euh, fekk fi ndaw bu am jom fekk fi ki nga xamante ne saa dafa yëngu ci wàllu si di Assane faal bëgg Fallu Assane Fall taalibe Sëriñ Fallu sëñ bi Fall maa ngi lay siyaare baax. ñu delloo siyaar baax di la nuyu di la ñaanal tawfeex di nuyu àddina waaw di nuyu kull kuy bàyyi xel Assane Fall. waaw hmm. Assane ngay Sëriñ Fallu di yëngu ci wàllu njaayum tissu xeetu tissu bu ne. est-ce que mën nga ñëw ci xeet bi ngay ak lan mën a dugal ci tissu yi. waaw tissu moom doon yàgg naa doon sama fierté ndax sama waajur bu góor moo fi tegte woon andi ma fi ma nekk si barab bi am suñu wane ba keroog xam naa ne ñaan bu nangu la ndigalu waajur moo si dugal. ndigalu waajur du lu am solo ndax waajur tamit mbiru yàlla la Assane yan xeetu tissu tey jii ngay jaay ba ki nga xam képp ko dégg dina am sawar ñëw fi tey fii ci Parcelles Assainies yi. waaw tissu am nañ filafil am na fi super 100 fas bi global la manqué dara lépp la jaaxal si tissu même boo ko gisee bëgg soxla ko sax dañ la koy wutal dañ lay defal bu ñëw waaw fii global la am nañ voile coton brodé mbasin mbasin am nañ qualité lépp bu ba jëm ba jasinière am nañ ko waaw brodé coton brodé marigué jipir bàyyiwuñ dara waaw ba am na am na am na kii gisoo abonnement bi nga événement bi ndax ndax événement bu si nekk looy wàccee gis nga kii kii maa ngi koy jaay mbubb trente mille mbubu trente ñu ko doon jaayee cent mille si ñu ngi koy jaay mbubu trente mille am na ay façon ah, am nañ jasinaat yëpp jasinaat yëpp am na fi waaw Facebook bi yëpp bàyyiwuñ dara fekk waaw. ndig lu abordable ndig yu xéwale. waaw ndig ndig yoo xam ne xéwale te kii ñu ngi ko doon jaay mbubu cent mille. ainsi maa koy def promo 30 000 waaw tout promo 30 000 lañ ko doon jour ngi koy def promo boobu 30 000 waaw ñu ngi koy def 30 am na filaafil yu rafet yoo xam wàcc nañ ko bordé marigay bordé am na yu jar mètre 2000 yeet mètre 1500 mètre 6000 mètre 10 000 ça dépend si qualité bordé boo bëgg waaw gisoo gisoo jesneer bi gisoo ma ñëng guldoo laa Lagem loo soxla si bagage boo ñëwee incha allah ko gis. góor jigéen ku fi ñëw di nga bëgg. yow sa bëgg nga <laughs> góor jigéen ku ñëw rek di nga bëgg. waaw di nga am di nga am mbégte te di kontaan. am naa yaakaar di nga si gis sa bopp ndax lu ñu mën def nañ ko ñu mën def nañ ko bëgg client kontaan ndax lii du yéen la yéen client yi na ko moom waaw. Assane bëgg fàllu bu dee lay am message booy jox nit ñeek képp ki nga xamante ne te yittewoo nga Waddu Tissu loolu leen di wax. waaw may woo waa parcelle 1 ba 26 bàyyiwuma sama kilaay nekk wakaam tëngéej ndax fu ne la nit du jugee fu ne la nit du jugee di ñëw fi di jën si bagage bàyyi ma ku lim jum may woo ñëpp ñëw leen bagage yi wàcce nañ bagage bees wàcce nañ nouveauté wàcce nañ loo xam ne xewal la ndax événement tabaski dafa métti moo saa su dañuy xool li nga xam ne mooy xéwal ku ñëw di si gis sa bopp waaw ndimbal njaboot waaw am na solo Assane Fall ku la bëgg jot jox na numéro bi rek. waaw ku ma bëgg a jot da nga jël 77 euh, euh, WhatsApp bi 967 78 88 wala nga jël 78 193 35 35 wala ilaa nga jël beneen numéro 77 787 48 96. te en même temps soo bu ñu la jaayee bagage bu la neexee dañ la koy livrer gratuite loolu si daara ji rek la am gratuite lañ la koy livrer. foo mun di nekk dañ la ko livrer gratuit waaw dañuy nekk di promo ay ndaw yi doole di àddina bàyyiwuñ kenn boo bëggee ñëw fii bu dee da ngaa jógee marché Dior place na la taxawoo sa càmmoñ boo ñëwee Sénélec bi bu dee da nga jógee marché Dior Sénélec premier magasin tissu bi nga jot deuxième magasin foofu mooy magasin bi jógee camp sapeur bi sooy ñëw place bi na la taxawoo am na magasin bi nga njëkk a jot biy jaay alimentation bi deuxième magasin mooy place bi waaw boo ñëwee incha allah di nga fekk Baye Fall ñu ngi fi moom place bi moom wane na boppam waa kër Baye Mbène waaw. waaw xasida yi ngay waaw xasida yi waaw place moom bu ñëwee moom saa su ne xasida yi waaw. <laughs> tabaski bi sax tamit xew tamit ko am xew bu ñu weesoo tabaski beeg. xew waaw ñun boo xoolee boo après di ngeen ko gis sax si image yi parce que am nañ am nañ bagage rafet am ti si xew ti si xew yoo xam ne ñu ngi koy jaayee cent mille dañ koy fi mu promo nañ ko bu baax mètre huit mille. til am na yu jar mètre six mille am na yu jar mètre cinq mille am na yu sax yu jar mètre deux mille velours bàyyiwuñ dara mulante lépp loo soxla mu ci biir kër gi mënuñoo lim lépp waaw. Assane Fall bëgg fàllu bu dee sa dernier mot lan lay nekk ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ak sa soppe yi sa clients yi di déglu àdduna fu ne. waaw may am kontaan si clients yi ndax naa lépp yéen la waaw di sant équipe bi nekk fii su mel ni ñu Omar Amat Arona Papa Ali waaw Awa Camara. bàyyi bàyyi bàyyiwuñ bàyyiwuñ kenn moomu bàyyiwuñ kenn waaw bàyyiwuñ kenn ñu sant équipe bi ay jàmbaar yu fi nekk di daan seen dootu ay ndaw lañ te xamul xamuñ doxuñ daray caaxaan kon sant la war na waaw. waaw di la jaajëfal yow it di leen ñaanal tawféex waaw di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi di ñaanal suñuy waajur yi ñu yàlla may leen tawféex ñu yàgg te wér waaw ñu ko la saw Cheikh Mor Fat Mouli di ñaanal suñu waajur bu jigéen wàccum liggéey ko ñaanal yàlla na suuf oyof si kawam di ko jaajël bu baax a baax a baax Assane Fall bëgg Fallou wax yàlla képp ku déglu kàddu yi di nga sawar loolu ñëw fii ci Parcelles Assainies yi unité 12 ngir fexe jàkkaaroog Assane Fall te man la di nga bëgg ndaxte loo soxla ci tissu xeet bu ne boo ñëwee di nga kontaan dina ngeen jëf. du denc mukk alal lu ñëw mu fab ko joxe tabam nga gàcceel na wax set wóor na yàlla